faatu ci accident oustaz ak nit ku faatu ci laq wala nit ku faatu ci li nga xamante ni aussi moo di géej diine am na lu mu ci wax euh, li dal la diina wax ci euh, anam yooyu nit ku ci faatu. waaw xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla yónni. te mm-hmm. moom mi yàlla yónni lu mu wax la yàlla wax. Mm-hmm. wa ma ataakum rasul fa xusu wa ma nahakum anhu fantahu mm-hmm. waaw ki dee ci géej ci jullit la jullit la. jullit laa wax nag. ki dee ci géej. wala mu doon am doom dee. Mhm. wala mu dee ci safara. Mhm. kooku shahid na shahid la. texe na jeex na. wala accident. waaw accident jeex na. Mhm. waaw kooku shahid na kon nag. pour ñi xamul shahid lu muy tekki. shahid mooy ku dee texe. koo xam ne dee na ci texe. la mu dee ku ca dee texe nga. muy muy loolu mooy shahid. waaw ki am doom. doom ji sottul nga dee. texe nga. ki doon lakk ki dem ci ki ki dee ci lakku safara. Mm-hmm. kooku texe na. ki lakk mm-hmm. ci géej texe na waaw. ñun ñëpp texe rëcc nañ mm-hmm. ndax lañu ñu dee dafa métti. métti woowu nag moom dañ leen di fee texe. waaw dafa metti ndax di am doom. ni mu métti waxuma nga dee ca. safara ni mu tàngee nga dee ca. ndox naq la nga dee ca. yooyu ku ca dee. Euh, sa sa kër moom direct safara sa aljanaar aljanaar nga jëm mm-hmm. waaw waaye nag bu dee ba ca des na nga xam ne gëmoo dara mm-hmm. kooku na sa affaire safara rek nag safara macha allah loolu day baax bu baax a baax baax maam Ali ci ay kàddu leeral bu ñu toogee ak euh, oustaz Iran Ndao ndax it saa su ne rek bu ñu waxtaanee ci ak moom ci diine xel yëpp dina ubbeekuwaat oustaz bu ma jógee ci point boobu noonu nag dinaa taxawaat ak yow ci li nga xamante ne nag jamono ji moo di dëkk bi dëkk bi fi ñu toll moment bi képp kuy sénégalais wala nga yeewoo ci réew mi ci njàqare nga toog ak tiit tiitaange euh, bu ñu demee ba tollu moment boo xamante ne ci réew mi ñi naan réew mi dina tàq réew mi du tàq euh, ban yëg-yëg ak ban gis-gis ngay am ci li nga xamante ne yéen a koy dégg. gis nga boo ne dana tàkk. waa aale na dana tàkk. Mhm. ma ne mhm. li nga xam ni xoddeeku ba nga lakk leegul. Mhm. dañ ne nangam kat a ngi ñëw mbas maa ngi ñëw nga ah, nañ leen ko kar balaa yegg si. Mhm. waaye mbas maa ngi ñëw ngeen nañ dem ñu dee ci ñun ñaar ñëpp. Mhm. loolu du wax. du wax eh, mbir yàlla bu fekkee ne dafa dogal. Mhm. nit nekk ci musiba. dafay jog taxaw. nga taxaw ma taxaw ma takki taxaw ñu kar loola rey ko. waaye nag bu ko ne nañu wax nañ leen wax wax leen sëriñ si wax sëriñ si rek mënuñoo wax sëriñ si nañu wax seen wàll mais ñu nañ wax. waaw na ñëpp wax. kenn ku ne boo jógee taxaw mbas mi du ñëw mhm. waaye kenn ku ne boo toogee fa nga toog naan baax na mu ngi ñëw de baax na mu ngi ñëw de baax na ba mu xëy ne béncëng ci suñu kaw ñëpp ci loolu mhm. loolu du àdduna àdduna sëriñ si niñu war a waxee nga war a waxee mhm. sëriñ si gémmiñ lañ yor gémmiñ nga yor yéene lañ yor yéene nga yor waxal rek ku ne missionnaire nga ku ne missionnaire nga. Mhm. man ngaa wax rek yàlla def sa sa ka yow wax na ko yonent bi. Mhm. nee na ko innaka laa tahdi man a walakinna laa yahdi man yashaa. Mhm. doo jubal ku la neex maay jubal ku ma neex. yow wa maa ala rasul illal balaaxul mubiin waxal rek. na leer. waaye jottali gi moom maa koy def maa koy def ci xol nit ki mu gëm. ma def ko ci xol nit ki mu weddi. yow wax rek nga am waxal jeex na. wax rek nga am nañu wax rek. Mhm. nañu wax rek mu jeex. Mhm. mais bu ñu tollee moment bi keroog euh, gis nañ ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko def euh, discours ci sorteem bi nga xamante ne moom la mujjee def ne pare na ci li nga xamante ne moo di mooy dossier bu ñu koy toppee taxaw na nag ne euh, defante mooy mën a indi jàmm ci réew mi dafa pare pour jàkkaarloog ñi nga xamante ne ñoo parewul pour bàyyi dossier boobu bi nga déggee discours boobu noonu ndaw yi bëri ne dañoo taxaw pour xeex loolu tegu ci suuf. mu mel ni xeex la sénégalais gën a pare ngir dellu te ginnaaw. waaw xam nga xeex amul njëriñ. xuloo nag du rafet. xuloo du rafet. waaw ndax ku nekk yaa ngi seet lu naqari sa morom nga wax ko ko. moo tax du rafet. Mhm. xuloo mënula rafet. wax ju wax ju baax moo mën a rafet. Mhm. waaye bu ma seetee lu la naqari damay seet lu xam ni la gën a bon ma kappale ko. Mhm. nga seet la gën a bon nga jox ma ko. noonu rek la Ousmane Sonko bu waxee loolu. ne na ma ngi ci. def na testament def def lépp lépp loolu waxu meer la rek. Mm-hmm. waxu meer la rek nañ ko jàppee noonu rek. Mm-hmm. parce que yàlla am na loo xam ne moom pare na ko. Mm-hmm. Ousmane Sonko pare lii yàlla pare lee. Ah. lu yàlla pare mooy dox. moo tax meer nit nit nit nit rek la dafa am lu ñuy tuddi al xel la. waaye na sax naa fi su dóor yi miin xel. ci xol la ne su jógee. da ngay bu la nit jegee sax mën koo rey hmm. mën nga fas sa jabar hmm. mën nga rey nit yooyu yëpp ci xel lay jógee hmm. moo tax bala ñoo dem aljana wa nasaanaa maa fi sudur min xilin yàlla dana rocc yooyu yëpp ba nga xam ne boo gisee sa morom moo lay gën sa bopp foofaa neex foofu moo neex waaye fii nga xam ni soo gisee sa moroom yaa ngi bëgg a dee su la rombeeg oto yaa ngi bëgg a dee. Mhm. su la rombeeg yaa ngi bëgg a dee. su la euh, xaalis yaa ngi bëgg a dee. Mhm. yow daal yow dara yow dara du la bégal. Mhm. te kat yaa li nga solo dàq lim sol mais li nga sol ndax lim sol. lim sol du sotti. kon mer moo indiloo loolu rek. mer moo indi loolu moo indi waaye yooyu yëpp du dara. du dara du dara du dara nañu nañu nañu rek ci yàlla rek. waaw gis nga yàlla. dana dogal ci euh, kenn du ca bokk. Mhm. bateau du Joola. waaw ñaata at la. yàgg na. gis nañ ko ba léegi. ah. gis nañ bateau du Joola. ba gisuñu ko gisuñu ko de. gisuñu ko su doon nit a ko def tey nag. maa day taal. waaw. <laughs> dana sonn. yàlla ay mbiram nu ko neex lay def. moom nu ko neex moom dara safu ko. li ko saf mooy dëggam gi. li ko saf mooy boppam. li ko saf mooy kàddoom. te danañu wan ñi moo ñu moom ñun moomuñu ko. Mm-hmm. kon nañ nañ nañ nanguloo rek nañ nangu ni moo ñu moom ñu moomuñu ko su ko mm-hmm. defee ñu nekk jàmm nekk buur mm-hmm. voilà mais fii euh, politique toll oustaz léegi ñu dem ba jamono joo xamante ne léegi ñëpp am pression ci politique ñi nga xamante ne aussi ñoom la ñu yaakaar suñu réew ñooy am benn taxawaay bi waaye aussi politique dem ba léegi yàqante ak waxante lu ñëw ak xaawante sutura la keroog dem ak tey ñu ngi gis vidéo Ousmane Sonko wala ay photo yoo xamante ne ñu ngi koy dugal ci internet bi ci simmi ko euh, ki divisé photo boobu di Mollah Morgun euh, jamono toll foofu oustaz ban taxawaay lañ war a am ñun askan bi. waaw xam nga jamono bu toll foofu ku ne day dellu sa bopp rek. bu mhm. fi anfusikum afala tubsiruun mhm. kenn ku ne na seetantalaat boppam seet li muy wax seet li muy jëf ndax jaar na yoon wala jaaru yoon mhm. waaw wa fi anfusikum afalaa tubsiruun mhm. bi ci des yàlla nee na inna alladina yuhibbuna an tasha an tasha al faahishatu fi alladina amanu fa lahum azabun alim fi dunia wal axira ñi nga xam ne dañuy bëgg di siiwal yu bon mhm. ci jullit yi di ko wane nee na ñooñu bala ñoo dee ma alag leen fii te buñ dee ma rek ma alag leen yóbbu leen safara lu ko jar am ko nit ki boo ko meree booy wax ci moom waxal loo soo ko meree booy wax ci wax waxal waaye li ma la wax ne xuloo xuloo moom du du rafet. mais ki daan wax lu rafet démb tey bu xëyaatee di wax lu ñaaw. am na lu fa jaar. Hmm. Ah, am na lu fa jaar di ko daan wax lu rafet. waaw xëyaat wax lu ñaaw am na lu fa jaar digganteem moog waa hmm. wala moog digganteem ak borom xaalis. Hmm. waaw waaw waaw ñaar yooyu benn la ciy doon digganteem ma waa ji. am na lu fi jaar wala bu digganteem ak borom xaalis woo nañ ko am luñ ko bëgg a jox mu wax leneen. waaye boobu ngor ngor anam. ngor dem na gis nga deret ji daw fii. bu ko kenn jaral bu ko dara jaral. deret ji daw fii. Mhm. bu ko kenn jaral bu la ko dara jaral ci àdduna. Mhm. goree rek ba dee. Mhm. waaw rek. ay jox la ay dix millions wala ay cent millions ay deux cent millions wala ay un milliard nga nga wax lu la neex loolu doxul. xaalis bi danga koy yore. mu ne la gore woo de. waxtu woo ko ubbee xool ko mu ne la yaa ñàkk ngor mm-hmm. boo ci jëlee dërëm jaay mu ne la yaa ñàkk yaa ñàkk ngor li ngay lekk mu ñàkk ngor mm-hmm. loolu lu ko jar ki nga am ki nga am man man su ma jàppee nit mm-hmm. eh, dafa am benn affaire bu am man ci uh-huh. suma melokaan su ma téye nit ci àdduna nit mënul wax lu tax ma bàyyi ko moom moo may def la ma koy bàyyee baa mu wax ma la ma koy bàyyi waaye man. mu nit ñemewu la ñëw sax wax sama sama nit dara kenn ñemewu ko ñu may dégg. kenn ñemewu la ñëw ne ma wax El Hadj nangam El boo ko xasee xam ci man jeex na. xanaa lu baax rek ngay wax. wallaahi lu muy nit moo lay noppal. waaye yow ku ñëw wax lii ku ñëw wax nga tey tey nga xonq la nga wax su ba nga ñuul gannaaw ba nga bleu. loolu du nit. loolu du nit dafa yor benn melokaan. yoral benn jàppal nit ki rek. Mhm. waaye yow nga jàpp nit ki ndax lii. ëllëg nangam nga dem bàyyi ko boo ko bàyyi lu mu koy jëriñ jaarale ko jëriñ jëriñu ko dara. Mm-hmm. ndax ba nga koy jàppat mu ngi doon dund. Mm-hmm. bi ko bàyyi day dund. Mm-hmm. ah. day dund. day dund day dund da nga jàpp. fekk ko muy dund. nga bàyyi ko bàyyi ko muy dund. parce que yàlla leen boole yor te nag xamoo fooy mujj yow nag. yaa ngi ci sa tey. waaye sa ëllëg xamoo ko nag. waaw kenn ku nekk mu ci teyam waaye gëm xamul ko mu xamu ko xamu xamu ko. ëllëg a xalaat li olof naan ki ne ci géej bu mu reetaan ki lab waa ji ma ne la euh, matu jaru jaru ko de ah, yaa ngi ci biir géej wallaay rëccëgoo wa rëccëguloo mm-hmm. jeex na jeex na mais ba tey ci diine euh, tey nit ki nga xamante ne moo jëf-jëf jooju wax xaawi sutura doomu aadama euh, bi mu demee ba si biir xelam wala xolam yeddaat ko mu génnaat fa mu waxee woon lu ñaaw toog jéggalu ki nga xamante ne moom la jëflanteeg jëf jooju noonu kooku nan lañ ko war a def ah boo jéggaloo mu jéggal ko koy baax na. Mhm. Ah. ndax ki jëf-jëf jooju dafa taxawaa publiquement ne dafa juum dafa ñàkk a xam waaye mi ngi jéggalu ki nga xamante ne moom la tooñ. voilà mu nga kon jeex na. Mhm. léegi nag ka mu tooñ moo ci des. waaw ndax moom baal na ko wala baalu ko moo ci des su ko baalee jeex na su ko baalu ba tey mu nga fa. Ah. parce que yàlla du baale alal alal jàmbur. wa maa rabbuka bi zalaamin lil abid. Mhm. yàlla du tooñ benn jaam. ma yore leen naa baa ma yore leen nangam boo ma ne baal naa la yàlla génn na ci soo ma baalu yàlla nga ko téye boo léegi ñu jël ko say jaamu yàlla jox ma ko. Mhm. nit ñi wax ak commentaire ñooñu seen yoon nekk ci digg. Ah, ankay ankay ah. wax ju bon. Mhm. rek wax ju baax waxal waaye ju bon. Mhm. wax ju bon jarul jarul li nga nit ñi nag léegi li ñu sawar. Mhm. mooy nett lu bon. wallaahi a ñu ci sawar. Mhm. ak wax lu bon. Mhm. booy kaay waay booy kaay muy ne booy damay añi waay booy kaay li ma lay wax daa xaañ. <laughs> xam nga ne Iran nag Iran nag Iran ba ba doyal. muy ah. nga toog fa ba suur. dañ lay wax day feetal sa biir sax après. yow da ngay kontaan ba nga xam ne maa day taati loolu du yëfu jullit. wallaahi. nit bu si Sidi Hadj Malick nee na. nit bu ñëwee di la wax problème mu jàmm ba jiyee na nga ko noppiloo. su ñëwee di rambaaj naa fekk seytaane commencé wax nga xam ko rek yow ne koy noppil man ka nekkuma ci loolu de voilà. Mm-hmm. parce que baaxul. baaxul macha allah parce que euh, baaxul.